asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi nuyu mbokk jullit yëpp di leen baalu xaq te di leen baal xaq di ñaan yàlla sunu boroom mu boole nu baal tey sunu kàddu gi dañu koy yëkkati jëme ko ci sunu kilifa di sunu sëriñ di sunu wayjur sëriñ Mouhamadul Boubacar Sy moom moom sëriñ Mansour moom sunu maam si Alaaji Malik di ko sant bu baax te di ko ñaanal mu nekk suñu royukaay nag barki dem bu déggati ngeen jëf ji mu jëfati ci li tubaab di wax modeste ñu koy wax nite muy simplicité bu mu waneeti ndax yàgg na ko wane ak dundam yépp simplicité la ak dundam yépp modeste ci la ci la nekk ak dundam yëpp OF la nekk barki démb bi mu demee ndakaaru euh, ñi taxaw ci bunt yi xàmmewuñu ko yóbbu ko fi nga xam te ni suñu ko xàmmee woon duñ ko fa yóbbu waaye bi ñu demee ba xàmmee ko d'après information yi ñu jot ba ko yóbbu fi fi nga xam ne buñ ko teeloon a xàmmee fa lañ ko yóbbu mu ne leen déedéet fii lay toog mag ñëpp ñoo yem ñëpp ñoo yem si dangaa dund lislaam dangaa nekk nit ku ragal yàlla danga nekk nit ku fonk doomu adama rek simalik Malick waaye yemoo ak ñëpp simalik waaye nag kuy sa maam si Alaaji Malick kuy sa waajur Sëriñ Mansour noonu rek nga war a mel wax dëgg yàlla day su la neexoon sooy ñëw ci bërëb boobu mbooloo ngay àndal muy ay garde corps wala ay motard wala ay ab daayira ci boppam soo bëggoon ñu ànd ak yow si waaye nag sa oyof ak sa xam ne àdduna du dara moo sabab bi ngay ñëw meloo noonu ba na ñoom xàmmeewuñu la ndax ñoom kat boo leen fekk see ci lu ñu bëgg rek ñu xàmmee la waaye boo leen fekk siwul ci lu ñu bëgg duñu la xàmmee si yàlla na la fi yàlla yàggal royukaay nga tànneef nga mat nga kilifa képp ku ma sa toogal sunu maam ju baax ja yàlla nga ko sut aw fan lépp lu ma sa def yàlla nga def lu ko sut ci barke si Alaaji Malik ci barke Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam yàlla na la fi yàlla yàggal yàlla na la fi yàlla yàggal yàlla nga am ndam ci sa liggéey bi ak képp ku la ko yéene jërëjëf si Malik